waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte bu baax ak contentement bu baax euh, tey nag di le premier août 2015 di final bi nga xamante tombé final bi nga xamante ni moom la coordination des tiijan de Thiès organisé mu dox ci diggante daayira Silema ak daayira Cité bi tey nag ñu ngi fii ci biir Silema bi Silema nag bu ñu waxee daayira di daayira boo xamante ni daayira bu am am taxawaay la ci biir coordination bi ci seen taxawaay ci wane nañ ko ci bu ñu demee ci gàmmu gi ak li nga xamante programme bi nga xamante moom la coordination des étudiants de Thiès di organiser yëpp ñu am ci taxawaay bu am am solo tey nag jeune coordination des jeunes étudiants de Thiès organiser tournoi tournoi bi nag li tax ñu organiser ko mooy boolewaat dajale jeunes étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk Thiès pour ñu xamante seen biir pour ñu raayal pour ñu. gën a miinante seen biir muy esprit communion boo xamante ni lu ama am solo la ci ñi nga xamante ni mooy les euh, jeunes Tidjane kon nag tey ñu ngi fii ci Silema ma taxaw ak nga xamante ni moom mooy euh, président bi ak ki nga xamante ni mooy vice président bi kon euh, président ginnaaw bi ñu la nuyoo nga wax rek noo gisee li nga xamante ni moom la coordination bi ba tey sa daayira dem final. Ah, waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mm-hmm. waaw ñu ngi leen tamit ah, di gis di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral ànd bi. Mm-hmm. dañuy wax ni ah nit ñi suñ dee ànd defe naa am na lu leen war a gën boole. Mm-hmm. te yàlla dogal ne boobu léegi ñoo ngi ci mais li ci gën a neexati tamit jeunes yi nga xam ñooy ànd. Mm-hmm. guddeeg ba guddeeg ba ci ñuy ànd di demandoo fu nekk. yàlla dogal tamit ñu xalaat ci seen biir ñu ne ah. ndaw fu mu toll dafa war a def sport mhm. te sport bi tamit ni ñu koy mën a defee mooy mhm. maanaam ñu ngi kun xale yi am na fi ñuy yëngu muy football bi mhm. yàlla dogal tamit am ñu nekk ci biir daayira yi suñ ko defee nag suñu boolee xale yi ñoom di ànd di football yi yenn saa yi di tase danañ xamante te danañ miinante comme ci miinante boobu tamit yàlla dogal ci biir miinante bi ñuy def ay tournoi ba nga xamante yàlla dogal tamit ñaara daayira war a tase ñuy daayira Sigma ak muy daayira boo zone boo xamante ni bi muy zone C. yàlla mhm. defal leen sutura. bu mhm. ñoom ñaar ñuy tase. Mhm. ci tase boobu tamit mu nekk da ñaar daayira yoo xam ne yàgg nañ di ànd. ah yàlla boole woon nañ lu yàgg. coordination ñu nekk ay seex ñoo waa Cité Senghor. yàlla dogatal waa Cité Senghor ñu teel a toog. kon waa Cité Lamy ak waa Cité Lamy ñooy tase. li nga moom lañ ci bëgg mooy faire xelal boo xamante ni. ñëpp dañuy ànd nekk ñoom benn. buñ ko defee football ki nga xamante moo gàññe ñu ndam li mhm. mais du tere ngir li nga xamante moom lañ bokk muy tareexa bi mhm. tareexa nga xamante ni mooy tareexa Cheikh mhm. ñu féete woo kër Serigne la ñuy féete tamit ñu ànd ak suñuy kilifa yoo xamante ni ñi ngi ci coordination bi muy Pape Amadou Faye ak ki nga xamante mooy suñu waajur yi ñu Baye Souleymane Guèye mm-hmm. Baye Abdoulaye Diop mm-hmm. ñooñu dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg ci yi yàgg wéttale ndaw yi gunge leen ba ci kanam ndax dafa am loo xam te moom la ñuy joué ci biir ndaw yi mm-hmm. ah di leen jàppale fu nekk lépp lu ñu soxla ñoom ñu taxaw ci comme yàlla dogal na yooyu yëpp ñu ngi am ci suñu biir ah ñu ngi dem final tey ci wàllu foo boo xamante ni muy football loolu dañ ciy kontaan sant yàlla mi nga xamante ni moo ñu may tamit ñu dem final ñaan yàlla tamit amiin amiin te suñ ko jëlee ba pare tamit. mi ngi mel maa nii waa Sétul Amine. ñoo jël ndam ne rek. dëgg la dëgg la ñoom zone bi la. Ah, comme rëcc nañ ci yeneen zone yi ba nga xam ne ñun ñaar ñooy tase. sant yàlla la bu baax a ñi ngi gërëm tamit eh, ñi nga xam ne ñoo ko doon organisé. Mhm. ndax dafa nekk loo xamante ni taxawaay bi. xawoon na métti ci commencement mhm. ndax dajale ay ndaw kese kese kese. ba ñuy daje bu dégg bëccëg. yenn saa yi réeroo dana ci am. Mhm. mais nag du organiser ko boo xamante ne boo xam ni bëri ñu ànd loo nekk benn. Mhm. loolu sant yàlla la. lépp luñ ci mën a def rek danañ toogaat waxtaan ak suñu biir. ñu nekkaat benn àndandoo. Mhm. liggéeyaat. Mhm. ba nga xamante ni yàlla def sutura lu ñu egg final tey ah sant yàlla bu baax a baax. dëgg la ñu ngi gërëm ñu commencé ci président Amadou Faye. dëgg la ba ci ki nga xam ne moo gën a nekk ndaw ci coordination bi. donc bu baax a di gërëm tamit seen ñëw bi ko ci kii nga xam ne mooy Mansour. dëgg la mu nekk suñu partenaire boo xam ne son suñu demee teeraawoon daal lépp loo xamante ni muy teraanga dañu koy def. dëgg la dëgg la kon ñun dañ koy sant bu baax a ah, kontaan ceeg ñëw ba bii nga xamante moo ñëw ne Silva ñu tam mënuñu laa fay yàlla na la yàlla jàppale waaw mm-hmm. ah, ñi nga xamante ñooy ndax ñi nga xam ne ñoo leen ñëw nii tamit mm-hmm. ah, su ngeen demee tamit nee leen ah alhamdulilah leen di sant bu baax a baax mm-hmm. nga xam ne moom lay def muy final bi yàlla na yàlla defal sutura ñu ma yàgg ko di ko organiser te li ñu bëgg ci biir ndaw yi tamit yàlla defal leen ko ñu am diine am yar am teggin bu nekk fonk métier bu baax a baax. Mhm. ndax damay dégg suñu kilifa sëriñ Abdou nee mhm. daw bu nekk dafa war a fonk fonk métier mhm. kon nag ñun ñëpp suñu dekkee di foo ba pare nañ fonk suñu métier. ko suñu yoonu teewoon xam suñuy kilifa tamit. loolu tamit dañ koy encouragé nit ñi rek ñu góorgóorluwaat bu baax a baax. ñu ngi leen di sant bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw président bala ma laa bàyyi tuuti ban nga yëpp. ban euh, kàddu nga leen di dénk. Euh, li leen di dénk mooy lii du loo xamante ne nii dañ koo waroon di xëccoo di am ci xëtër xëtër yu metti yooyu mhm. dafa nokk loo xamante ni dañ ciy organiser pour nit ñi nekk benn rek mhm. pour ànd bi gën a dëgër Cees nu mu yaatoo mhm. ñu gën a xamante ndax yàgg nañ ci daayira mais am na ñoo xam si ñii dem réunion coordination rek ñooy gën a miinante mais su ñu defee lii dañoo bëgg ñi nga xamante ni lii duñu ñu dem réunion coordination ñuy tase bi waxtaan bi xamante bu ëllëgee nit su jógee ci benn koñ dem ci beneen koñ dana xam ne ah kii suma ko xarit mu ngi fii suma nit a ngi fii soo demee mën nga dal foofu waxtaan moom li nga soxla foofu mu lijjantil la kon nag li may wax rek ñu gën a góorgóorluwaat ñu nekk benn jéem a xamante bi gën a yaatu ah lii nga xamante mooy conférence yi nga xam ne moom lay organiser coordination tamit ak tuur yi luñ ci mën a organiser lu nekk ñii nga xamante yi ndaw yi dañuy topp seen ndaw rek ñu nekk ci di yeneen jataay yi mais nag dañoo war a retourné taxaw ci diine ji xam ni lii suñu waay bi lañ suñ leen ci ñoom dañuy ñëw donc lépp loo leen wooyee ñu ñëw kon ñun dañ ci amee beneen taxawaay kon loolu dañ ci góorgóorlu bu baax a baax am ci wàllu organisation mm-hmm. daayira yi mm-hmm. daayira yi ñuy ñëw di fekk fekkee waxtaan yi xam suñu tarix lan la bëgg mm-hmm. ak muy bañ donc rek laa doon lancé ah kon dañ naan mention spéciale coordination des étudiants de Thiès et waaye vice président lay dolli ci lu président wax rek. waaw ah, asalaamaaleykum. maa mhm. ah, ngi leen di nuyoo sant leen gërëm leen di def jéegul ci dérangement yi parce que lii yombut. Mhm. am naa ni coordination bi. lépp benn la. ci mhm. la ak ci Silma ak si Lamine benn daayira la parce que ñun ñooy bokk benn zone ci waaw ñooy toggandoo ñooy jaxandoo lépp. Mhm. mën naa am sax dañu demee ba am yenn problème yi ci biir zone ba sax waa Cité mhm. Lamine ñoo ci jël seen xaalis ñu ngi financé. daa am jaawam bii baax ñoom ñoo jël seen xaalis ñooñu ñu ngi jënd ndékki. Ah, loolu loolu ràtt la. loolu ràtt la kon bu ñu demee ba dajewaat final tey. Mhm. daa am ba ay jël kàpp reer. kese mooy l'essentiel ak déglu kilifa yi. Mm-hmm. surtout violence bi amul xuloo amul xeex amul dara dañ koy dugal ci fees pare dugal ko ndànk dugal ko mm-hmm. yëpp doon benn quoi Sénégal dem kanam. Mm-hmm. ñu ngi di gërëm nag di sant xam naa dañuy jox Ousmane rek mu présenté kii bi ndax mooy capitaine bi. waaw balaa ñoo ñëw balaa ñoo ñëw ci Ousmane rek euh, dañuy dugal nga xamante ne mooy euh, vice président euh, coordination bi. nekk ci ginnaaw Pape Faye donc tey moom mu ñëw ànd ak ñun ci li nga xam mooy reportage bi ci final bi nga xamante ni moom la coordination des étudiants de Thiès et banlieue organisé dañ koy bàyyi kàddu gi xaaj Ibou bismillah mbokk ñëpp ziar ñëpp baal ñëpp rek di ñaanal yàlla ñi nga xam ni ñoo dem final bi que le meilleur gagne di wax rek comme ni ko président Pape Sène waxee mm-hmm. mbir mi dañ ko teg ci jongante foo ak ree fo ak ree ci lan ci kër mbokkoo parce que ñun ñëpp benn lañu benn lañu bu ñu waxee coordination de daayira Tijaan Thiès et Banlieue mënoo dindi silman ni moom mooy coordination bi kese kon daayira yëpp bokk benn te li ñu wax war a jàppalante war a dimbalante yàlla andiwaat ko ci alquran taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan jàppalante leen dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla mais bu leen dimbalante ci noonoo ak boog diggante xeet kon loolu tax ñoo jóg mais li tax a jóg mooy que ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk ñu def la Serigne Babacar Sy waxoon mm-hmm. muy fay mbuusu yóbbal mm-hmm. Ibrahima Samb bokk ci coordination bi nekk som mm-hmm. bu dikkee silma kum ci tasee ci yéen war a mën a dugg këram añ naan ataaya tëdd fa noppalu ko jàpp julli yéen tamit kasaali ko ku fi ñëw som dugg kër Ibrahima Samb añ naan ataaya jàpp julli mu waay mu tuddee la sëñ Babacar Sow mu ni daayira li taxoon mu wax daayira mhm. muy fay yuur bu su yóbbal mhm. que ku jógee silma dikk som mhm. doo tumuranke ku jóge som dikk silma doo tumuranke kon loolu la def tax ñu organiser ko mu nekk nag ay ndaw te bëgg si tamit wax dëgg yàlla li Pape wax euh, président bi organiser waat suñu coordination bi nga xam ne moom la ñu am parce que mag ñi wax dëgg yàlla seen jaan wàcc na mhm. waaye nag ndaw ñi ñoo ci des mhm. kon lii dafay permettre ndaw ñi gën a woote waat gën a jàppalawaat président mhm. Pape Amadou Faye ñu dénkaat ko ndaw ñi moom muy woote ndaw ñi gën a jàppante waat ci lii nga xamee ni mooy cause bi nga xamee ni dañ ko koo dénk ki ko ko dénk muy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine Tijani ni ko kat damaa bëgg nga fexe ndaw Thiès yëpp nga représenté leen nga pre nga nga leen ci benn mbooloo dikk teg ko ci loxo loolu nag waa Silema di ci bay lu am am solo te yemul Silema rek di ko bay Silema di ko wër yëpp tund bi yëpp. ba lew na jàpp kër Mori Fall ñun ñëpp ñu ci def seen kéemtalaay kàttan. kon loolu su amee dañ leen ciy santaat. wax rek message bi bi ma ci lancé daal mooy que ni bu lii weesoo ñu dikk àndaat. coordination bi coordination bu ñëpp la. Mm-hmm. ñëw àndaat. Mm-hmm. wax dëgg yàlla jàppalante. joxante loxo. ñu mm-hmm. xamante. Mm-hmm. dëgëral lii nga xamee ne moom ko ñuy coordonné parce que may wax nii dama koy wax sama xarit yi. Mm-hmm. man leen ñun amuñu beneen xarit. lu dul lu nekk daayira. waaw kon bu ñu bàyyee daayira fan la ñuy dem. kon li tax ñu organiser ko nag dañ ne ndaw da nga koy fekk ci la mu gën a bëgg. nga organiser ko loolu. suñu benn wayjur mu ngi ci mu ngi ciy wax benn benn message bu am am solo. mu ni Pape Ndiassé Mbaye dafa fekk euh, ñi jouer poker. ñu joué poker mu dem intégré intégré leen bi mu leen intégré di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ñu naan Ndiaye Samaye lu muy def ci ñu joué poker mhm. ba muy firi alquran mu invité leen bi mu leen invité ñu déglu mu leen di wax poker bi nàngam yàlla baaxul nangam ba mujj gi ñooñu mujj def ko daayira def ko les frères musulmans yàlla def ñu dajewaat mhm. demaat Makka ñoom ñëpp ñu dajewaat formé waat beneen association ñu jogaat les amis di kon nit ki bu ko dañ ni bu ko bu ko bu ko teree mooy mais nangay fexe ba bu ko bu mu ko tal bu mu ko tal kon ñun moo tax ñu organiser waat xëy na football bi xëy tamit xaraam waaye li si Seydina Mouhamad Seydi Hadji Malick wooy ko wa bi xaylihi parce que nit ki mën nga xeex ak moom pour dugal ko ci l'islam nit ki da koy fekk ci li mu bëgg nga dégg andi ko ci li nga bëgg mooy kon moo tax ñu organiser Euh, tournoi bi te wax dëgg yàlla am na ci satisfaction am na ci ñoo xam ne bokk bokkuñu woon daayira biñ leen bindee coow li bari mais ñu bañ fa jógee bokk nañ daayira bokk nañ daayira kon benn nit sax bokk ci daayira ñu organiser tournoi bi benn nit bokk ci daayira kon am na solo kon jël koo xeeb kon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax a baax ñoom tey silman wax dëgg yàlla gërëm leen wax dëgg yàlla ñu am taxawaay la ñu ñoom tamit di leen wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla président na leen ko yàlla defal président de la moo ko teg ci sa loxo nee na li ñuy wax ci wolof naan nee na nag wóoluwul woon béjjënam nee na du ko xasaloo nee na kenn ku ne xam na yàlla yàlla sagal yàlla yàlla defal la li nga bëgg yal na yàlla yeggale seen émission ma ànd ak fekk ak tal ñu ngi sant ñëpp ñu gërëm ñëpp ñu ñaanal ñëpp yàlla yàlla nañu ko teewaat ba bëree ba tabaarakallah ngeen baal ñu am léegi ñu joxe trophée yi waaye ñu ne baraade bi commission d'organisation lañ ko jox mooy ñu joxoon ñu ko Seydou Faye. cabinet ci dara bi. mais yéen nag dégg nga man boo avancé bu ma baare. ñu war a nag léegi nekk rax solo dem kër ga euh, dañuy rafetlu programme bi di rafetlu initiative bi ñu ko ñu ko jël ñu ko organiser ba mu toll fii euh, président Abdoulaye Cissé Modou Diène Baye Issa Diène Abdoul Aziz Mbaye ak man mi toog fii ak mboolem suñu rakk yi ñu nekkal fii euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ci ci programme bi xanaa dañuy dañuy wax ni rek euh, bis bi li tax mu toll fii baax ba tey euh, gannaaw yàlla gannaaw ñaanu mag ñi bokk na ci suñu mag ñi baax ñi nekk ci xadara bi ci mel ni Pape Souleymane Gueye du ma dugg di ko wax parce bu ñu ñëwee ci moom ñu def programme bi moo ñu njëkk jox xaalisam njëkk a ñaar jëm ay tàmbali leen sa participation bi nga nii bu demee ba ci demi-finale yi génn waat xaalisam joxaat ñu encore kon tey mbir yi baaxee tey ba ñëpp dugg seen loxo tey daanaka kon dañu naan ñaanam ci la bokk waaye tamit nag dañuy sant leen doon woo di leen sonal ci ci marché yi nit ñi dimanche war a xëy noppalu ba leen di seen lay naa leen kaa leen moo dara du dul ñu santoon rek yëpp su ma damay juum mais damay lim ñaari daayira rek ñi nga xamante ne tey ñu defal final bi muy silma ka nga xamante ni Babacar Seye laa gën moo di ko sonal daanaka si na lami ma ci doon jokkoo ak Bakka Sane di ko woo ko sonal tey ñoom tey ñoo dem final tey maa ngi sant bu baax di leen gërëm aw ma wax ju bëri ji ma siy wax xanaa lu dul remercier suñu soxna yi lu ñu jàppale remercier suñu wëjër yi lu ñu ñaanal remercier suñu suñu suñu suñu dëkkandoo yi waaye nag di remercier ñi nga xam ne ñoo ros ñoo yor lycée bi muy proviseur bi lycée Seydi nga xam te ni fii lañ commencé premier match yi fii lañ jeexalee dernier match bi final bi euh, am sama sama xol dafa sedd dafa fees lool waaye wax dëgg yàlla parrain bi mënuñu ko ñàkk a sant kër Alassane Sall ak ne ko Babacar El Hadji El Hadji El Hadji El Hadji Mouhamed Mouhamed Mouhamed Diallo mi nga xamante ni moo tax am ko waaye tamit nag euh, genn gon genn golo gudd na waaye boo ko laalee borom yëg ko xam ne Diallo waaye daanaka dixième ñoo tax ñu xam ko. président Baye Mor Diop bu baax baax xam ko baax wax dëgg yàlla ñu ne sant baax di ngi sant nañ ñëpp bàyyi kenn al amin confection moo moo ñawal benn yére jox ko meilleur joueur bi joueur bi gën a yaru al amin confection euh, président Lamine Niang monsieur le zone moo ko moom la ñu defal jàpp Baba Diouf confection ñamal nañu ñaari mayo ñu jox ko jour encadreur meilleur encadreur jox ko le meilleur joueur maa ngi Diouf professionnel ngay jàmm mu ngi bokk dara si la mel ku yàlla may ndam ci li muy euh, euh, ak waa Orange ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant indil nañu ñaari ku ñu mag jox ñu ay ay ay sac caméra sac banaan yu mag a mag a mag wax dëgg yàlla bëggoon naa teew xëy na jëm moo ko moo moo ko téye di ko sant bu baax di ko gërëm ñu ngi sant ñëpp bàyyi ñu kenn euh, jërëjëf loolu laa may wax damay bàyyi sa gaal gi yóbbu leen waaw comme ni ko Assane waxee rek sant yàlla waxaat noonu ni mu ko waxee alhamdulilah rabil alamin ci commencé mbir wax dëgg yàlla yeggale ko ba ca cappaandaw ga kon ba ñuy delluwaat te amuñu ci benn tolof tolof amuñu ci benn gaañu gaañu di wax yàlla mi nga xam ne moo ñu may loolu dañ ko ciy delluwaat santaat daayira yi nga xam ne ñoo participé waat ñëpp santaat ñi nga xam ne ci jàpp ci mbir mi ngir ñu xam ni seen mbiru bopp la loolu daal la ñuy ñaanaat di woowaat daayira yi la waxoon daal ci benn buum jàppandoo àndandoo tegandoo yëkkateendoo ci li nga xamee moom leen sëriñ Abdou Aziz si sant loolu daal moo tax ñu organiser marché yi ñuy gërëmaat ñëpp ziara bi ñëpp sant bi comme ni ma ko waxee woon sànq ñi saytu woon mbir parce que mbir mi su fekkente ni ñëpp mënuñu ko woon a saytu ay nit rek kay doxal saytu di dégg lu ne di dégg lu ne waaye tamit ñoom nañ xam ne rek yàllaa taxoon ñuy def nañu leen di sant di leen ñaanal lépp lu ñu def ñu bañ cee gis seen bopp yàlla defal leen jàmm defal leen jàmm lépp salaamaaleykum